nekk ci parti doon sama yitte bi ma bàyyi dama bàyyi PDS ak yor ko ndomb tànk boobu man Abdoulaye Wade mën a mën inspecteur général du PDS nekk au pouvoir noonu ma ci cabinet ma bàyyi lépp ñëw fekk si ko mooy jamono ji nga xam ne PDS dafa dal ci kaw di ko ci jàppale ba yàlla dogal mu am ci ndam kon encore une fois euh, li may wax nii dama koy wax rek pour fàttali ne ko moom statut ak réglementaire moo koy joxe sañ-sañ moo koy xañ warul defee coob rek au-delà de lui nag may fàttali Sénégal yëpp surtout responsable du parti ñu xam ne militants yi duñu seen i jaam seen i naaw la loolu rek lay jàngale foofu moo tax ma di ci insisté ni ne bokk APR vraiment nekku sama yitte. nekku sa yitte mais mais mais honorable que bàyyiwul ba génn biir APR di di di ŋàññi doxalin bi ñu ne euh, comme ni ngay wax ni ci biir parti bi am na instance yu bëri doxul honorable bi tax mu bàyyi ba génn biir APR doon ko souligner. bi may wax ne APR fan su këram la boobu boobu maa boobu maa ngi ci biir APR xëy na da li nu jotale mag Macky Sall aussi ma wax ne mun am troisième man naa ba ma koy wax boobu maa ngi ci cabinet kon wax sama xalaat moom jàpp naa ne moo ma fa jëlee waaye bu ma bëggoon bañ faa jóge rek bu ma defoon ne ña ca des ne muut kon kenn du ne moot ndax xam nga li ma la wax. waaw voilà donc euh, ay génn door a wax jëlee moom parce nag ba may waxama fa génne hmm. voilà. d' accord ñu ñëw ci leneen honorable député euh, Moustapha Diakhaté wax nag ci euh, li nga xamante ni moom la ñu daal di tudd assemblée nationale démb tey jii daanaka mooy def une ci journaux yëpp ak ci euh, média yëpp mu ñeel nag trafic de passeport diplomatique yi nga xam ne dañ ci tudd ñaar ci ay député yoo xamante ni ci mouvance présidentielle la ñu bokk maanaam ci majorité bi la ñu bokk foofu ci assemblée nationale dañu ci interpellé parce que benn da nekkoon foofu ci ci ci assemblée nationale ñaar la ci interpellé parce que da bokk comme ni nga ko waxee léegi ci biir APR ñett ñu interpellé ci itam comme citoyen lambda boo xamante ni ku euh, dégg mbirum euh, trafic de de de passeport diplomatique niñ ki daal waxee ak itamit ni mu mën a suuxalee lenn ci suñu économie euh, naka nga ko nga ko jàngatee bi nga ko déggee boobu xibaar démb ak léegi. waaw ñetti yi yi tax nga laaj ma benn bi mu ci gën a intéressé mooy citoyen am nekk citoyen sénégalais kon ay député ñu war a dem assemblée nationale. Euh, nekkal ma fa ma di leen fay en tant que citoyen ci samay impôt mm-hmm. di jox xaalis ngir ñu liggéeyal ma su ma déggee ñu ne am na député yoo xam ne dañu fa nekk doon def ay trafic ci passeport diplomatique dama koy jàppe lu lu lu lu ma metti jàpp naa ne ñooñu mm-hmm. li ñu def mooy saaga Sénégal mm-hmm. li ñu def jëf bu bon la jëf bu ñaaw la man nekkoon naa député effectivement comme ni ko waxee mais nekkoon naa président du gouvernement bi ñu nekkee assemblée dafa am loo xam ne député yi am na député na sañ-sañ am passeport diplomatique loolu yàgg na waaye nag dañ ko daan jox jabar mais ñaareel bu ñu koy jox benn jabar bi benn jabar lañ lañ koy jox te xam nga Sénégal nit ñi dañu am polygamie maanaam mën nga am benn ñaar ba ñeenti soxna bu fekkee nag léegi dañ la jox benn passeport diplomatique te yow nga yor ñeenti soxna day indi jafe-jafe ci kër gi léegi nag bañoon ay député seeni kër di am jafe-jafe ñu ne léegi nañu may député bi soxna yi mu am ñu wutal ñu wutal leen passeport diplomatique loolu bi ñu ko ñaanee président jamono jooju Mankeur Ndiaye mu nekkoon ministre de l'étranger may te ma dox ci jéego jéego président may ko loolu kon bu fekkente ne nag loolu ab député moom mi ngi ciy buruxlu di ci def euh, nu mu tudd man daf may metti daf may metti lool nag lu metti yam moo tax ma di ko ñaawlu di ko condamné euh, di sàkku Euh, assemblée nationale rawatina ci mu jël ay responsabilités ba mbir moomu ñu leeral ko lu ca war ñu def ko benn ñi nga xam ne député yi ñu ko jiñ ma jàpp ne jërut ñu yàggalu génn damaa defe li leen mooy démissionné ci assemblée nationale bu ko defee man justice mën a mën a def liggéeyam loolu mooy benn président de la République nga xam ne ci bi ñu ko ñaanee moom mayoon député yi ñu mën a wutal seen i sol ay passeport ma jàpp ne décision boobu dañ ko war a da ko war a dindi dindi ko su ko defee passeport bi ñu yemal rek ci député député bi ñu di ko jox passeport ay jabaram ak doom yooyu ñu génn leen ci ginnaaw ay nit mën nañoo jaay seen ngor boroxlu ci pour di ci def ay ay di ko jaay loolu moom mooy mooy mooy vraiment li mesure forte bi may la mooy que ñu di jabar yi jabaru député yi ñu jox passeport ak jëkkëru député yi ñu jox passeport diplomatique ñu dindi ko yemale rek passeport yi ci député yi parce que nag ginnaaw am na ci ndax wala daf dafa am na ñuy gàmm am na ñuy raas dem ginnaaw nag ñu am na ñuy raas dem te raas dem googu mën naa yàq derub assemblée mën naa yàq derub république du Sénégal jàpp naa ne lépp lu tax mu mën a am rek war na ko dindi. naka la ci naka la président de la république war a taxawee naka la ci itam ñoom ñi nekk responsable APR. Eh, jiite eh, par exemple groupe parlementaire benn bokk yaakaar ku ci mel ay miru ñu dégg nañ ko sax ah, mu wax ne eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa APR rek majorité bi ñu protéger benn député mais bu ñu delloo si ginnaaw tuuti gis mbirum Bougazelli dama koy tudd ci mbirum faux billet bi yoo xam bi nga xam ne tuddoon nañ ko ci ñu dégg ne am na liberté provisoire ah, tamit daanaka ñu bëri ci Sénégal yu samay kàddu sax dañoo yaakaar ne est-ce que du am nëpp nëppal buñ ci nar a defaar ak làq-làqal comme ni ñu ko defee ci euh, ancien député Seydina Fall Bougazelli. waaw li nga wax dëgg la yaari bu fekkee ne lu ñuul rey sa maam boo séenee lu ñuul da ngay daw. da mm. nga daw da nga tiit am na bi député boobu nga tudd euh, sànq am na ay ayib yu ñu ko tuddoonu ci wàllum phobie ah na woon na assemblée bañ demoon sax ba ba dem kaso. waaye dañoo jékki-jékki dégg ñu ne génn na ñu di dox soxlaam kon euh, république bu ñemee def lu ma mel noonu euh, jàpp naa ne nit ñi war nañoo daañ ñaaw jot ci ne député yi nga xam dañ doon jaay ay passeport itam man naa am ñu ñu def leen lañu defaloon euh, seen collègue boobu loolu nag jàpp naa ne du lu du lu rafet encore une fois loolu nag man li may insisté rek mooy ñaari yëf la benn parti bi assemblée moom bu ko neexee mu bu ko justice laajee mu lever immunité parlementaire député waaye damay bañ dama bëgg député duñu a def liggéey ci biir loolu nag may sàkku ci président de la république mu parce que nag bu fekkee ne député boobu nga tudd sànq ne dañ koo jàpp ci mbirum phobie ñu jékki-jékki dégg mu dem këram ministre de la justice am na ci responsabilité am na ci responsabilité donc président de am na bu ñu bëggee nag sénégalais yi seenum xel dal wóolu président de la république wóolu assemblée nationale ci ni nga xam ne bu nit tooñee dañuy dal ci kawam dama jàpp ne lu mel ne la ñu defoon waruñu koo def mooy député boobu doon soppi xaalis waaye lu mel nii aussi jàpp naa c'est une occasion pour ñoom ñu rectifier image bi nga xam ne Sénégal dañ ko jox nguuru Macky Sall mooy que seen waay yoon du dal ci kawam te jàpp naa loolu moom lu bon la baax. est-ce que lii motif la pour dàq leen ci parti APR. absolument kooku kay moom kooku jëru sa toog ba di leen. kon kay kon kay honorable Macky Sall mun ci bañ xam nga dàq dàq ab député ci parti taxul mu ñàkk statut nekk député non c'est dama wax ne député ñoom dañoo war a démissionner pour yoon man a dem liggéey loolu mooy mbirum justice. li nga xam ne wàllu politique la ma wax yaar yëpp benn bu njëkk ba mooy président bi nga xam ne mooy président parti bi moom da leen a war dàq parce que jàpp naa la ñoom li ñu def parti bi moo gën a ñaaw man li ma def parce que man waxuma lu dul troisième mandat Macky Sall mënu ko am troisième mandat constitution moo ko tere moom ji wax mu ne woon du ko am kon ku mën a dàq ko nit ci affaire troisième mandat ñu jàppee ab député muy muy jaay ay passeport diplomatique nga xam ne document officiel de voyage bu Sénégal moo ci gën a kawee jàpp naa ne kooku moom war a amatul place ci alliance pour la république. ci euh, waxtaanee beneen mbir honorable député euh, mm. muy nag mbirum troisième mandat boobu nag ngay wax fan yi nag mu mel ni euh, dafa am ci Afrique nag benn. syndrome boo xamante ne bu ñu ko sañ tuddee noon daf fi daal di nag fës loolu muy mbirum coup d'état ginnaaw Mali Guinée barki Demba Ndiaye dañu dégg coup d'état bi nga xamante ni nag euh, colonel Mamadou Doumbouya def na ko euh, ci président Alpha Condé euh, mu nekk loo xamante ni dem na ba acteur politique rawatina opposition bi ñu ci ba ñoo jàpp ne leçon la pour keneen ku mu mënti doon rawatina président Macky Sall ci mu bañ a xalaat sax di briguer benn troisième mandat. waaw xam nga <clears throat> li wax dëgg nag waaye xam nga Sénégal ñaare ñi def politique damay jàpp ne dañoo yëpp Sénégal. parce que aw askan boo leen yabut doo leen wax lu jub dëgg or ñi wax ne troisième mandat moo tax ñu coup d'état Alpha Condé wax lu dëgg Alpha ñu coup d'état jotuwul ak troisième mandat d'ailleurs même ñi bi ñuy wax sax tudd ñu troisième mandat kon jooju wax nañ ko nañ ko teg suuf te bu ñu bëggee Macky Sall du am troisième mandat ñun suñu bopp ñu xeexal ko suñu bopp nañ defoon Abdoulaye Wade ba mu bëggee troisième mandat Sénégalais yi ñoo ko réglé seen bopp kon jàpp naa ne bu. boo nekkee politique bu même boo nekkee adversaire Macky Sall aussi booy wax na nga wax dëgg mooy li xew Guinée jotewut ak daara troisième mandat bu Alpha Condé am na bu ñu demee ba ci kanam yeneen information dina génn ba nit ñi xam lan moo làq ci ginnaaw bi nga xam ne am na Guinée bi kenn wuru koo layal hmm. même bu fekkonte ne ñoom dañoo dañ ne dañuy daane Alpha Condé ndax troisième mandat bi mu wut ñun waruñoo d'accord ci troisième mandat kii ci coup d'état xam nga damay wax toujours ne ni ñu teree ni jullit war a bañee naan sàngara noon la démocrate war a araamale coup d'état ni jullit sañadee jël sàngara di ko fajoo bu woppee noonu la démocrate war a war a araamale jël coup d'état di ko saafara jàngoroy politique jàngoroy politique kon encore une fois man coup d'état boobu maa koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem di sàkku d'ailleurs def nañ ko sax CEDEAO euh, moi ak euh, Nations Unies ñaawlu nañ ko condamné CEDEAO euh, li may sàkk ci moom mu jëli responsabilité pour que nag li xew Guinée yem fa parce que nag defoon nañ nee nañ moon yàcc ci Mali ba coup d'état am fa amaat fa jàpp naa nag bu fekkente ne nag dañoo na dañoo bàyyi aw wënde mu mu neex nga génn ci armée bi ñëw na ñëw ñëw ñëw daane président de l'Afrique buñ def ndax instabilité bu rëy rëy dana moo tax ma jàpp ne CEDEAO dafa war a jël ay matukaay yu mat sëkk sëkk sëkk pour que Guinée ñee xam ne ñoo jël pouvoir moom ñu maanaam ñu gën no fokk ci seen loxo